ñi di gànna danoo soof ñàkk fayda torop bu dee danoo bañ sëriñ tuuba ba tax bu nu koy waxtaane seen xol di jug xol booba dee na ba waxul lu bon baalu ñaaw baalu saboote ko tam sëriñ bi ak waa këram lii rek rek ka fa jib yow jam si teeyal te xoolaat fitna bi lu ko jar samal sa kàddu soxor gum tax nga wëndeelu balab ku nee ngi wax joote ngir bëgg am bës bu rëy bëgg a siiw bay dox di sikkal baa di soo mbër ba far ni këlëb asgor dafay maanu am yar te am sàmm gu wér du tooñ du diingat du xas jàmbur du yuuxu di tëb kon gànna buural te bul gëstoo te kenn dawal ki ngay liggéeyal amul ab kem te kem du ko dab kon gànna buural te bul gëstoo te kenn dawal ki ngay liggéeyal amul ak kem te kem du ko dab du la seetaan te du seetaan murit bu ko gëm moo mën kanam mën ginnaawam te ku xam du ko yab kon gànna buural te bul gesooti kenn dawal ki ngay liggéeyal amul ak kem te kem du ko dab du la seetaan te du seetaan murit bu ko gëm moo mën kanam mën ginnaawam te ku xam du ko yab subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin. ngeen jot